damaa damaa bañ baat boo xam ne da ngeen koy dégg rek suba ngoon nit ñëpp sax maa fi nekk dinaa ma yaa ko àddina àddina luy àddina ndax diggante asamaan ak suuf mooy àddina ndax suuf si ci bopp mooy àddina ah lan mooy àddina ah biir suuf si kon du àddina ñu dëkk ci suuf terrain yi nag kon ñoom nekkuñu àddina ah bu fekkee ne kaw gi ak suuf gi donc mooy àddina ñu dëkk ci suuf terrain yi nag ñoom ñooñu àddina laa ilaha illallah ah ah yow gis nga yaa ngi ma yóbbu ca xama li ngeen di jàng muy xama géographie la xama géographie yaa juróomi continent yi mooy àddina ah continent yi ci àddina bi maanaam léegi juróom yi rek moom mooy àddina ah waaw di ah dafa dañu war maal xalaatam xalaat dama la joxe de ah léegi ay wax soñ Aboubacar ak Abdou Karim léegi léegi ajo ay fan ak i bis xam ngeen leen wutale ay fan ak i bis waaw ñun ñaar benn lañ nga ne yàlla nga guddi fan laa lay wax wala yàlla nga gudd fan yàlla nga guddi bis ma lay ñaanal donc yàlla nga guddi bis laa lay wax wala yàlla nga gudd fan ah ah kon kay xanaa man teqale naa waaye est-ce que sañ naa laa wax yàlla nga guddi bis kenn du ñaanal naa ko yàlla nga guddi bis loo koy wax yàlla nga gudd fan wolof bu ne bis jant bu fenk la ak jant bu sox loolaa di bis bu wolof ne bis loolu la ci jublu bu ne ay fan nag ak dund la ci jublu bu la ñaanal yàlla nga gudd fan mooy yàlla na nga gudd sa dund gi la yàlla jox ci àddina yàlla na gudd day ngi teqale diggante al umru olof al umru du ko tuddee ay bis déedéet nu mu koy tuddee ah ak dund ay fan la yàlla nga gudd fan fan mooy ak dund léegi naa ñëw ci àddina dama jàng jenn laaye léegi ci suñu borom yàlla bi joxe niral ci àddina ne wadrib lahum masal alxayaati dunia al dafa am ñu tudde alxayaatu dunia baatu dunia ci làkku arab ah mooy lu suufe mi ngi jóge ci danaa ya dunu danaa dunu wan wala mu jóge ci ab danaa atu gi gi firi lu xeeboo xeebo wala danaa gi firi jege danaa gi firi jege wala danaa ak gi firi ak suufe jàpp solo addina addina moog laafum yoo lu ëpp fa yàlla man lu ci ëpp gànjar addina ak laafum yoo ah laafum yoo laafum yoo ñent yàlla Muhammad nee na sallallahu alayhi wa sallam hadis bu wér péng la nee na addina ci boppam bu tollu woon fa yàlla ne laafum yoo kon ab yéefar du fi naan ak dox addina bu tollu woon fa yàlla ne laafum yoo maa faqa minha kaafiran sharbata ma kon ab yéefar du fi naan ak dox loolu li muy tekki mooy kon tolluwut fa yàlla ne laafum yoo kon laafum yoo sax moo ëpp gën a gànjaru loola nag lu xeebu la lu xeebu la moo tax suñu borom yàlla ne nit ñi dama bëgg nga joxal nga joxal ma leen niral ci dunduk àddina jii mooy lan kenn ku nekk suñ dee dama ko xaw a yab tuuti moo tax ma mel ne ko koy jubante waaye li waxoon wér na ki génn àddina ruuga moo génn àddina waaye yaram mi ngi def àddina xam loola maanaam ruuga moom nekkatu fi ruuga nekkatu fi kon génn na àddina bu ñu ko waxee luñ ci jublu ruuga dem na ruuga génn na du nekkatu ci dundu àddina waaye nag yaram yi moom mi ngi def fii ci àddina waa àddinaa koy sang waa àddinaa koy suul waa àddinaa koy julle xam ngeen baax li moo kon daa téye ci ak wet ma ëlbati ko moo tax wolof yi dañ naan waaj a génn na àddina fekk sax mi ngi ci biir àddina waaye dañ caa jublu ne bakkanam mooy ruuxam nekkatut àddina dégg nga su ko defee kon dundug àddina gi suñu borom yàlla nee na kama in anzalnaahu min as-samaa daa mel ne ndox moo xam ne daa ko wàcce mu bàyyi ko fan ah mu bàyyi ko ci kaw ngay wax as-samaa li muy teg ci arab mooy kaw mooy kaw mooy as-samaa mooy kaw moom la wolof di wax asamaan moom ak téeg la koy wax ab téeg ab téeg sax du asamaan donc lépp lu kawe rek ab téeg la ba fii imaam di taxaw sax tiim maamum yi man nañ ko woowee ab téeg moo tax niir yi niir yi nga xam ne ci la ndox mi di bàyyi ko nekkul ci asamaan wa saxaabil musaxari bayna samaai wal ardi ndox mi ci niir yi lay bàyyi ko te niir yi nekkul ne dañoo taq ci asamaan si niir yi boo waroon ci ab avion dañ lay dañ koy gis ci sa suuf kon niir yi nekkuñ ci asamaan kon asamaa mooy lu mooy kaw rek maanaam borom bi nee na daa mel ne ndox moo xam ne dañ koo wàcce mu bàyyi koo fan ci kaw mooy kon ab taw dégg nga léegi ndox mi nga xam ne daa bàyyi koo ci suuf nga am ci teen ndoxum teen wala ak fayaan wala ndox mi nga xam ne jigewul ci kaw moom naka jekk fii ci suuf la nekk muy lu mel ne ak géej ak lu mel ne ak dex ndox yooyu misaal mi yàlla saa borom bëgg a joxe du ko joxe ci ndox yooyu ndax ndox yooyu jigewul ci kaw ndox mi jigee ci kaw moo ànd ak barke am li ñuy wax particularité am ak jagle mooy ak xusuusiya ndox moomu li mën ci gàncax ndoxum teen mënu ko ndoxum géej mënu ko ndoxum dex mënu ko ndoxum sayaan mënu ko tashbih bii la ñuy wooyee tashbihu tamsil mooy nga jël dara di ko nirooleeg ay yëf maanaam du ndox mu du ndox moo xam ne daa jóge asamaan képp mu jeex de déedéet faxtalata bihi nabatul ardi maanaam faxtalafa ku mën a tekki faxtalafa lu muy tekki mu jaxasoo al ixtilaaf mooy jaxasoo déggoo ñu naan foofa de góor ñaa jigéen ñi dañ faa ixtilaaf mooy dañ faa jaxasoo léegi faxtalafa jooju ana faa'ila nabaatul ardi gàncaxu suuf si moo jaxasoo bihi baa gi baa u sababiya la maanaam ci sababu wàccug ndox moomu noonu ci sababu wàccug ndox moomu noonu ci la gàncax gi jóg róogaloo est-ce que xam nga li ma wax ah gàncax gi ci boppam boo gisee bu ñuy màgg dañuy lan dañuy jaxasoo lan moo ko waral bii ci sababu ndox mi ci boppam ci la gàncax gi jóge róofaloo jaxasoo xam nga ne baax loolu mooy su fekkee damay jël nabaatul ardi def ko bu nekk faa'il wa illaa dañ naan wax ji li waroon a doon mooy liñ miin liñ miin mooy ndox mooy ñëw jaxasoo ak gàncax wala gàncax mooy jaxasoo ak ndox ndox mooy ñëw jaxasoo ak gàncax wala gàncax mooy ñëw jaxasoo ak ndox ah ndox bi muy ñëw fekku fi gàncax bi ndox bi muy jógee asamaan di ñëw fekku fi gàncax bi nu muy jaxasoog moom xanaa looy jaxasoog da nga ko fay fekk ah waaw léegi léegi gàncax moo ñëw jaxasoo ak ndox gàncax moo ñëw jaxasoo ak ndox walla ndox moo ñëw jaxasoo ak gàncax en réalité li ñu naan en réalité gàncax mooy ñëw fekk ci ndox jaxasoo ak moom gis nga boo jiwoon fii nii ah ba noppi sotti fii am ndox fii di tooy reen yi nekk fii bu ñu bu ñuy bu ñuy bu ñuy dem bu ñuy dem fu ñu jëm ca ndox ma lañ jëm reen yi nga xam ne ñooy bàyyi ko ci gàncax yi bu ñuy dem fu ñu jëm ca ndox ma la ñuy dem kon ñoom ñooy fekki ndox ma jaxasoo ak moom loolu moo tax reen yi nga xam ne ñoo nekk ci garab yi nga xam ne fii dañoo am ay teer reen yooyu fa ndox ma nekk reen yi foofu lañ jëm léegi nag kenn ku nekk reen bu ci nekk la ngay am ca ndox ma reen bi yàlla da koo bindee noo xam ne dafa am ay li ñuy wax ay ay ay ay ay masaani bi maanaam daa mel ne dafa am ay ay bën-bën yu tuutee tuuti yoo xam ne ndox mi da cay jaar di yéeg di yéeg di yéeg topp reen ba di yéeg di yéeg di yéeg di yéeg di yéeg ba àgg ca xob wa xob wa daa di nëtëx daa di wer léegi su fekkoon ne da ngaa bëgg a wut pomp boo xam ne li muy liggéey mooy jël ndox mi di ko pemp muy yéeg ngir fekki maanaam xob ya fañ nekk loolu day na fëkk ab liggéey waaye yàlla ni bind ndox mi binde ko jëmmi reen yi te lépp ami reen mooy reene ci boppam ñooy fekki ndox ma fañ nekk ñuy jël ci ñoom jël ci ndox mi seen lan seen wàll di ko yéegal muy dem di fekki lan xob ya moo tax reen lu la ëpp luñ koy roose xob ya gën a lan gën a naat xob ya gën a naat léegi borom bi nee na daa mel na ndox mu ma ba wàcce mu jóge asamaan ba mu ñëwee benn nga ne maanaam ndox mi ci boppam gàncax gi moo ñëw jaxasoo ak moom wala su la soobee itam nga ne ndox mi bi nga xamee ne gàncax gi daa sax te sababoo ci su ndox mi gàncax gi daa mujj lan roogoroo léegi nag mi ngo daa fekk ci ndox bi waaw mi ngo mi ngo léegi nag boo demee ca suuratu yunus nee na mimma yakulu naasu wal anam léegi gàncax gi bi mu saxee ba àggal am na ca loo xam nit ñaa ngi koy nit ñi ñoo koy lekk am ci loo xam ne jur gee koy lekk ndax li ndox mi di saxal lépp du nit a koy lekk war la ci nit di lekk gerte gerte jekk rek si Abdou Karim daal jekk rek naan gerte yow gerte xam naa da ko gerte xam naa fa faax nga bëgg nga bëgg li bari li bari lépp yow xuma dara naa ko jënd rek gerte ah da xam naa ah xam naa lu ok ci biir wax laa ko xam waaw nga nit boo ko boolalee yu bëree bëri ba mu fekkee ne bëgg lay dégg suñu waaw noppi jëndal la gerte nga xam léegi gerte nit ñee koy jëfandikoo am déet ak lan dugub ak lan xaal du jeex am na ci yoo xam ne jur gee koy jëfandikoo moo ne day léeg-léeg jur gi bokk nit ñi ni ñuy jëfandikoo waaye nit ñi day jël la ca gën a baax bàyyi la la ca def gerte noonu la demee ngooñ ma wala ñebe nu wet nu wet noonu demee léegi nag naat na مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت bu ñu demee ba nga ne suuf si léegi sañ saw na ah su marñiku na mooy ne suuf si boo ko xoolee léegi rafet na gàncax yi jub nañ tàmbali naa yaay am xet am nañ xet yaay am tóor-tóor am nañ tóor-tóor ba nga xam ne nag baykat yi moom amatuñ lenn lu ñuy sikki sax te kii ne suñ tool nii moom jekku nañ tool yi subaak jàmm ñu góob si wala mu ngi seen xel wa zanna ahluha annahum qadiruuna alayha borom bi nee na ma bett lee nag ay njëréer yebal fa ay njëréer xam ngeen njëréer ah yow yaa ngi ci biir kër ga lay sant melaw naan bu subaalaay ñu ko ndekete njëréer ñoo nañ wala sax nees taw bi yuur wàcc ataaha amruna su mbir ñëwal tool ya moo xam lay lan la ko ñëwal aw aw nahaara fa jaalnaaha xasida ka an lam taghna bil amsi nga xëy rek fekk lépp mu nekk xasid fail bi maanaam mafuul li nga xatil bi maanaam maqtul maxsuud mel nañ ko góob daara baaxatu fa mel ne tool yi mosu fee nekk démb borom bi ci beneen bara mu ne da ngay jékki-jékki rek lépp nekk mu farra lépp mboq te ca njëlbeen mboqutoon nu mu demeloon daa nëtaxoon mooy daa wertoon waaye léegi jamono ji nii nii dem de fa taraahu musfarra fii mu ne fa asbaha hashima xool baatu hashim hashim mooy loo xam ne daa tooyoon ba yàgg mu wow lu mel ne am mbob suñu dana xam mbob ah léegi mbob la léegi bu ngelaw li ñëwee bu da koy sànni tadruhu riyah xam nga ci njëlbéen bi ni mu meloon ngelaw li bu ñëwee itam moom mënu ko mënu ko mënu ko mënu ko tasaare waaye ci jamono ji fi mujj nii moom ngelaw bu ngelaw weer yàq dem suñu borom yàlla nee na seen adduna ji ngeen fonk nii njëlbéen bi day rafet lool day taaru lool day mel na àll bi bu fekkee ne ndox maa ngi doog wàcc waaye xam nga fu muy mujje fa asbaha hashiman tadruhu riyah wa kaana allahu ala kulli shay'in muqtadira daal di indi yi nga gën a sët ci àddina àddina bokk na ci li nga xam ne daf fee rafet lool mooy almaal mooy lan alal lan mooy alal du moom dong ci la bokk neel ma neel ma neel ma xaalis ci la bokk ay suuf ak jur yu yëpp alal la lépp loo xam ne loo moom la rek te man caa soppaxndiku rek loolu alal la loolu mooy almaalu mbooleem xeeti alal yi moo xam ak jur la moo xam ay suuf la moo xam ay usine la yooyu yëpp nga boole ci wal ba nuuna ak doom yi nga xam léegi da nga amul njaboot xam nga lu mu doon nan loolu ñaari lu mu doon zinatul xayaati dunia lii nag dëgg-dëgg mooy taaru àddina nit bu nekkee àddina yàlla dogal mu am alal wala mu am ay doom ah àddinaam day taaru lool lool sax waaye gis nga ñaar yii nii ndax day sax alal ndax day sax ay doom ndax day sax moo tax mu indi wal baaqiyaatu indi la yi nga xam ne day sax waxul wa saalihaatul baaqiyaat da wal baaqiyaatu ak saalihaatu yi nga xam ne day sax te doom yu baax moo xam julli juróom yii la nga xam ne moom day dem directement ci suñu borom yàlla ñu bind dafa la ko sa compte moom nekkut fii àddina ba nga naan day jeex yooyu xayrun inda rabbika sawaaban yooyu dëgg dëgg dëgg nag mooy la gën nag fa yàlla ci wàllu tiyaaba ni ndax alal ji kat mën ngaa demee nga amul la ci naqari alal ji man mën naa koy soppaliku mbugal ci yow fala tujibuka amwaaluhum wala awlaaduhum innama yuridu llahu li yuazibahum biha seen alal yeeg seen doom yi bu mu la yem de maa leen ci bëgg a dumaan alal ji daa mujj soppali ko mbugal ci yow nga xam ne léegi da nga koy jaamu far benn yoon tëlatoo julli tëlatoo daara yaa ngi ci alal ji suba ngoon doom yi itam kadaalika léegi daanaka sa alal ji lañ topp rek di ci def loo xam ne mënu ci dara nga xam léegi mbugal la fu mujj fu mbugal la mujj soppali ko ñu ngoog ku la ëpp ne alal bala nga ko woon a xam mooy nga ngay wàcc aéroport bi yor ay bagage yu bëri na nga fay yàgg boo ko teg yor wenn walis rek day dem moom fuqaraaw yi nga xam ne fuqaraaw muslimin dañ dugg ayoon lu yàgg yàgg gaa yi def fa ñu leen di liggéey ndax dërëm bu nekk lañ ko liggéey waaye nag booy defee ne nag ñooña yàgg gañ fa yàgg noonu ñu leen di liggéeyanti day tax maanaa dégg nga ma ñee ëpp leen ay daraja bu fekkee ne ñii ñuy liggéeyanti ay waa àjjana lañ ñu liggéeyanti dërëm bi nga ne koo dugal nga ne sa jàkk ci laa ko def koo dugal sa daal ci laa ko def dama ko saraxe sa mbokk yi laaj jóg ñi ñi ñi xool di xool lépp baax bis boo noppee foofa bo booy bala nga koo xam wax nga hôtel bii nii ci aéroport yi nga il faut ko xam dafaa yàgg lool ndax bagage am moo bëri waaye bis bu jàllee te hôtel yi ma ngi di jëm mën na laa romb bu yàgg yem kon bu yàgg bu yaakaar ne ñu ëllëg gi leen njëkk a dugg mooy dañu leen gën a wayef moo tax dañuy ñoom dañuy yor lu ñu teet waaye tekkiwul na dañ leen ëpp daraja Seydina Aboubacar li mu yoroon ci alal kenn xamul nu mu toll Seydina Ousmane li mu yoroon ci alal kenn xamul nu mu toll Abdourahman Abu li mu yoroon ci alal kenn xamul nu mu toll waaye ñun ñëpp ci yoon yàlla lañ ko def moo tax suñu borom yàlla alal yii ci boppam ak doom yi mën nga leen jëfandikoo ci lu neexaat yàlla doom yi yóbbu leen te daara yi jàngal mu dal moo ko alxaan nga faatuñu toog di la ñaanal loolu koy wax dëgg yàlla dara yu rëy la nga am fukki doom ba ñaar fukki doom ñëpp toog di la ñaanal ah waaye suñu compte boobu baax na di te yaa ngi ci faatu nga yaa ngi ci biir bàmmeel te bàyyi nga fii ci àdduna ñaar fukki doom mën naa am sax ay xalaqaat lañ yor di jàngale lépp di ñëw ci sa biir compte ah sëñ bi loolu loolu ñax na de ah ñax na torop sax yàlla mën na ko yàlla xëy waaw almaalu walbanuuna ziinatu alxayaati dunia walbaaqiyaatu saalihaatu xayrun inda rabbika sawaaba wa xayrun wa xayrun amala man sa yaakaar sa yaakaar ci mu gën a bëree mooy albaaqiyaatu saalihaat ndax alal ji mën nga ci am yaakaar nga dem ba yàgg la nga ci yaakaar tas doom yi mën nga ci am yaakaar nga dem ba yàgg la nga ci yaakaar tas waaye albaaqiyaatu saalihaat moom loo ci yaakaar du tas bu fekkee ne yàllaa tax na koy def boo fa demee insha allahu taala danga ko fa fekk léegi nag adduna bi jeex na tàkk su borom yàlla subhanahu wa taala bëgg laa xamal ne léegi ni ma koy jeexale nii la adduna damaa jël ay montagne samp leen ñu teelan suuf si wal jibaala aw taadaa wal jibaala aw taadaa léegi ab xayma dafa ñu ko gis a ab xayma nu ñu koy sante du am ñeenti koñ am buum boo xam ne si dañuy jël ab daaj rob ci suuf daal di jël buum bi daal koy lan takk léegi su ma bëggee daaneel xayma bi lan moo ci gën a gaaw damay lan roj ci daaj yi lay sos ñu ngoog wa yawma nusayyiru jibaal bis nañu boo xam ne al jibaal ci boppam mu ñoo téewoon suuf si ñoom laa fi jëlee léegi portable bi montagne la dafa taaw fi mu sampe fi mu sampe gisoo ko am yaa ngi koy gis li ci ginnaaw nag yaa ngi ko gis ah li li féete ak man yaa ngi koy gis fi mu sampe nag gisoo ko léegi nag su ma ko su ma ko toppalee nii wataral arda barisa léegi suuf si fàng-fàngaara lay def léegi yëpp lay dindi lu tax dama ko bëgg a waajal moom suuf soosu noonu pour mu nekk foo xam ne fi laay attee jàng loolu wax ci suur paane fa yadaruha qaan safsafa doo gis ay ay nuux nuux laa tarafiya in wajna wala amsa mooy ay nutoo aat léegi fu xóota si nekkul lépp daa jàpp lépp daa def ak ab pàkk dig tàkk pàkk mooy foo xam ne daa yaatu lool waaye mën naa am mu am lu fa sax bu dee tàkk nag mooy safsafa dara du fa sax loolu mooy wa inna la jaa'iluna ma alayha sa'idan jurza léegi nag génn nañu àddina léegi ay montagne ñoo nekkoon ci àddina bi montagne yi suñu borom yàlla jël jële jële leen ci wa humilatil ardu wal jibalu fa dukkata dakkata waxida fa yawma idin waqa'atil waqi'a wa tara al arda bariza ma dajale ñëpp la ko dale ci aadama ba ci ma mujj bind wa xasharnaahum waxul wanax suruhum de daa jëfandikoo fi lu maadu mooy ñëpp laa dajale nga ne ko mbaa am na ko def mbaa du am na alam nughaadir minhum ahada kenn des kenn kenn baatu dara ci arab mooy loo xam ne daa dem bàyyi fa dara ci lañ jëlee alxadru gi firi woor mooy koo xam ne sarakal wafa ci lañ jëlee alxadir gi firi ab deq nga xam ne maanaam yool mu bari moo fi bàyyi lu mel ne saaru dex lay doon borom bi nag nee na bariwuma kenn ñëpp a génn léegi nag bi ñu génnee niñ leen suule woon dañoo soo dañ leen suule woon suulaal woon ay daal ñëw bi dañ ko suulaal ay daal ah mbubb nag yéere nag tubay nag wa uridu ala rabbika safa ñoom ñëpp ñu exposé leen gaaral leen ci kanam sa borom yàlla jàpp jàpp yow may din tuwaradoona laa taxfaa minkum xaafiya ñëpp ñëpp ñëpp nekk ci yow mu barizun ñëpp dañ naan fàng fàngaaral fu waay nekk ñu seen la tund nekkatu fi aw xur nekkatu fi wa uridu ala rabbika ñu nekk ay sàppe nag ndax foofu xel liñ nangu woon mooy bis penc day mel ne jaxasoo bi ñu war a nekkee ay sàpp wër wër fa am waaye yàlla lépp da koo organisé maanaam ay sàppe lañ def sàppe sàppe sàppe sàppe sàppe wa uridu ala rabbika safa borom bi na daa ne lu mu ci daw ah laqad jittumuna léegi nag ñëwal ngeen ma kama xalaqnaakum awala marra naa leen binde woon te njëlbeen ga nga xam ne kenn ku ne ba nga juddu indaale woo tubay ba nga juddu indaale woo ay dàll ba nga juddu indaale woo mbaxana noonee ma leen binde woon awala marra noonu ngeen ma ñëwale waate moo tax bis bañ ci kenn sol daal Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nee na xufaat ay dañuy fàndaañu kenn du sol daal xurlan kenn ku ne lañ tagge woon ci sa sa ndéy ndéy lañ ca daggee woon ba ngay dugg néegu góor loolu day ñëwaat day dellusiwaat mbubb soloo yonente yi ki ci njëkk am mbubb mum sol mooy sunu maam Ibrahima moom la ci yàlla njëkk a jox mbubb mum sol mas na ko wax saxaaba mas na ko wax benn bi ay sunaan ko ah loolu dama doy waar ne ay góor ak jigéen ci benn borom kenn solut yére salaamaaleykum ne ko mbir ma gën naa rëy loolu ay sure kenn du tal loolu kenn sa fa xel du nekk ci naan kii daa sol yére sunu di yére doo ko tal ndax sentiment yi nii ñu war a lijjanti jaam ñi te xamoo foo jëm yow la hawla wala quwwata illa billah borom bi ne ñu bëri ci yéen jàppoon nañ ne mawid bi du am bal zaamtum alla najala lakum mawida yéen da ngeen a foogoon ne mawid bii nii mooy rendez-vous bii ma leen jox nii ñu bëree bëri ci yéen foogo foogoon nañ du am borom bi nee na wa wudiya alkitaab kenn ku ne taalif nga sob téere nag ñu bëree bëri dañu yaakaar ne taalif yaa ngi taalif rek ndax li ngay wax lépp am na ñu koy bind boo soqatee fa ñu bind na ñoom xam xam ñoom ñoom boo soqatee loolu acte boo def yaalamuuna maa tafaaluuna xam ne nañ ak sëqat xam ne nañ ay wong loo kullu maa yalfizu min qawl illa ladayhi dañuy jël son di jël acte kàddu dañ koy jël di jël acte lépp dañuy bind di bind di bind rek moo tax ay jóor lay doon da ngay gis seen yëpp ñu teg leen o bi alkitaabu ay jóor yu mag a mag lay doon kenn ku ci nekk xam nga ne téere yi am na ci boo xam ne yaa ko moom te fas yéene nga koo jàng moo tax ñu naan iqra kitaabaka jàngal sa téere bi yow sa téere la moo tax nit daanaka rek bay ba moo xam li ngay wax ak li nga ndax yi ngay wax yépp ñu ngi koy bind te malaaka yi ñoom loo wax bind nañ su borom yàlla nee na wudi alkitab léegi nag kàccoor yi nga xam ne fii ñoom xam nañ xel ne bi ñu nekk àddina ci ay kàccoor lañ newoon téere yee dañ koo seen tiit lool ca la nekk ci biir wasaral mujrimina mushfiqina mimma fii maanaam li nekk ci biir téere yi moo dañ see ji te ak seegu tëb joxaguñ leen mi ngi mel ne ku jox ab convocation aw kii dong la waaye kon li mu doon dèjà convoqué ah dañ leen da ngay xaw a ragal kii ah mooy lan da dafa am lu fu kii du jëm ak yow loolu moo tax al mujrimin da nga leen gis mushfiqina mimma fii bu téere yi xasee ak nag bañ koy xool dañ koy jàng. dañ naan yaa waylatana suñu tos pare fu mu nekk noo ngi koy woo mënul alquran bi maa li haada alkitaabi lii moom mooy ban téere téere boo xam ne laa yugaadiru saxiira wala kabira illa ahsaha lu ndaw ak lu mag ak sëqal yaag wonku yaag wokkutu yaag lépp bañ ci biir xoolal tàmbale wuñ ci kabira wala saxiira saxiira lañ di tàmbale ndax ku bind saxiira ma dana bind kabira te bu fekkoon da ngaa ñëw tey jii ci àddina fekk benn société boo xam ne da nga koo bëgg a lijjanti yu ndaw yi moom doo ko lijjanti yu mag yi ngay lijjanti borom bi nee na wa kullu shay'in faaluhu fi zubur wa kullu sagirin wa kabirin mustaqar lu ndaw ak lu rëy ak lépp la jënd lépp kay lépp rek lépp rek nit ci boppam mu ay mbiram dafa diis te gis nga téere yooyu noonu du du ñoom ñoom doo ñoo leen seede suuf sii nii yow ma idin tuhaddisu axbaaraha mbooleem loo fi mas a def suuf day taxaw di ko wax nga naa ko waaw malaha mu ne ah bi anna rabbaka aw xaalaha sa borom a ko wax yu kat li muy wax nii nga ne haa dee sa waay cër yi tàmbalee wax yawma tashhadu alayhim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kaanu yaamaluun làmmiñ day wax la nga doon wax ay loxo di wax la nga doon def ci loxo yi tànk yi itam noonu al yawma naxtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kaanu yaksibuun malaaka yi nga xam ne yàlla dalaa boole ñoom itam wa jaat kullu nafsin maaha saaiqun wa shahid yaa bari seede ñëpp di naan la yaa def di yaa def di yaa def la sa sa sa yaram bi wa qaalu li julu ligin nga naan lima shahidtum alayna dëgg dëgg nag noo ngi leen di laaj yéen suñu yaram yi yéen suñu loxo yi yéen suñu làmmiñ yi lan moo tax ngeen nuy seede lan moo tax ngeen nuy seede li ma shahidtum alayna ñu ne ah ñun kat antaqana allahu alladi antaqa kulla shay ñun yàlla nu wax loo rek wa xalaqakum awwala marra wa ilayhi turjaun suñu borom yàlla subhanahu wa taala nee na wa wudia alkitabu fatara almujrimina mushfiqina mima fihi wa yaqulun ya waylatana ma li hada alkitabi la yugadiru sagira wala kabira illa ahsaha amoon na ko baax koo xam ne dara wax ne saa suma xëyee kàddu gu ma wax rek damay jël aw xeex xànni ko ci ëkk boobu dafa amoon ab pàkk bu yaatoo yaatu boo xam ne dañ ko miire clôturé ko kàddu gu ma wax daal di jël aw xeex xànni ci biir di xool boppam wenn weer daal la fa dugg fekk fa xeer yoo xam ne fii bëri gum bëri manqué dafa tiit su mu toll itam li nga xëy wax ko nii bu ñu la waxoon ne li lii la bu ñu la joxoon téere bi nii da nga naan li waxuma ci bis ndax dangay wax di dem rek moo tax Omar ibn Abdul Aziz daan wax ne ku boole waale say wax ci say jëf da nga ko néewal sa wax yi ci sa jëf yi la bokk te gis nga wax yi ni bëree jamono bi nit ñi dañuy wax di dem rek defe ne wàcc nañ ko fekk wàcc nañu ko ahsaahu llahu wa nasuhu yéen a ko fàtte waaye yàlla mu takk na lépp léegi nag wa wajadu ma amilu xaadira lépp luñ jëfoon fii ci àddina fekk nañ lépp ñu teewal nag wala yaslimu rabbuka ahada sa borom nag du tooñ kenn moom xoolal ak bi ni maandoo nit ku ñu indi àddina ne la am na malaaka yu ñu la booleel li ngay def dañ koy bind ñu wax la ko nga dégg ko gëm ko ne la suuf si ngay dox dalay seede ëllëg ne la sa sër yi dalay seede ëllëg ba nopp su borom yàlla mi la nar a seede moom xam na loolu lépp ah wax dëgg yàlla day ku yàlla noppi ci yow nga war a xam dëgg dëgg dëgg ne kii moom maanu la moo tax su borom yàlla bu noppee ci àtte bi ñëpp ay maaso ne alhamdulilahi rabbil alamin waa sawara ak waa ajal ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp ñooy maaso ci ne alhamdulilahi rabbil alamin wa qudiya baynahum bil haqq wa qila alhamdulilah rabbil alamin moo tax pencum suñu borom yàlla mi ni ko yàlla di ñett léegi dañ ci war a bàyyi xel bu baax a baax a baax suñu borom subhanahu wa taala nee na bu ñëwee nag ba nga xam ne penc mi nag taxaw na ba àggal nag bis boobu damay wax ñi ma daan booleeg ay nit daan ma booleeg yuñ daan jaamu ñoom dama leen sant daan ma leen di sant dama naan leen naadu shuraka alladina zaamtum ñi ngeen ma daan booleel damaa bëgg ngeen woo leen fii ci pénc mi ñi ngeen jàppoon ne man ñoom ñoo bokk nguur gi damaa bëgg ngeen woo leen ñu woote fa daawahum wala yastajibu lahum ndax ñu wuñu wuyu ndax xam nañ xel ne yàlla mu màgg mii taxawal bis pénc yi ña leen daan booleeg ñoom ñoo ñaa juum ñoo ñaa juum wa yawmal qiyaamati yakfuruuna bi shirkikum bis nañ ci képp koo booleeg yàlla day taxaw ne la maanaa li nga ma doon def du dëgg santuma la ko mboolem nit yàlla yi nga xam ne dañ leen di booleeg yàlla yawmal qiyaama buñ bëggee jàll yàlla da leen di taxawloo ñu weddi mbooleem lañ leen booleeg yàlla lépp weddi taxaw te dëgg la ñuy wax su boobaa ndax xam nga xel na nit ku ñëw di jàngale yàlla moos di wane màggu yàlla moos ak ni yàlla seddeeg ni màgge nga bëgg koo far jox cëru suñu borom yàlla moo xam ne bind asamaan la def bind suuf borom bi nee na xanaa seetlu la ñi ngeen may booleel maa ashhadtuhum xalqa samawaati wal ard wala xalqa anfusihim maanaam bi may bi may bind asamaan suuf tekki wuñ ko ba di ko seede waxu dañ caa bind dàq ne seede la woo ma leen ko kuñ seede la woon mbir nag mooy fekke woo ko bañ koy bind bi ma leen di bind ñoom seen jëm bopp itam amul kenn koo dama ne la toll naa ci bopp xoolal maa ngi bind sànq ci xoolal kenn koo xam ne seede nga sa bindu bopp bi amul tedd na sa bindu so- so- soxna ba ñuy bind ci moom doom doo yëg ne jamono ji ay tànk ci lañ toll wala ci ay bët lañ toll wala ci bakkan lañ toll da nga jékki-jékki rek gis maanaam ñu ne waa maanaam fii ji la war mat amul kenn ku ma seedaloo bindu bopp bi ndegam nag bàyyi bind asamaan ak suuf seedaloo ma ko kenn ba ma leen di bind yéen tam seedaloo ma ko kenn kaay ngeen lijjanti loolu mooy naadu shurakaai alladina zaamtum fadaahum falam yastajibu lahum wa jaalna baynahum mawbiqa benn yoon la ci alquran mawbiqa mooy sama dig diggante ñi ñi ma daan bokkaale ak ñi leen doon bokkaale damaa jaar ci diggante bi maanaam ab taw tawara loolu moo tax kenn ñëwut a wax wara al mujrimuuna naar kàccoor yi jàkkaarloo ak sawara gis ko nii wóor leen ne fii lañ nar a dugg wa zannu annahum muwaqiuha wala yajidu anha masrifa dara mën ta dox sa diggante ak ñoom sawara bi penc bu ko yàlla sa borom di indi ci ma sër bu doy war lay ñëwee sallallahu alayhi wa sallam nee na sawara buñ ko booleeg malaaka yi koy indi juróom ñaar fukki junni malaaka maanaam ñoom ñooy indi sawara juróom ñaar fukki junni malaaka di ko indi ci ay càlla la menn malaaka mu nekk junni càlla la yor loolu soo ko calculé ñeenti milliards la jox ñeenti milliards yi malaaka ñooy indi ñooy indi sawara menn malaaka rek doole ji ko yàlla jox menn malaaka nga jël ñeenti ñeenti milliards yi malaaka ñuy ñoddi sawara jéng ko di ko indi ci penc mi loolu moo tax bis penc sawara bu séenee gaa yi nga xam ne ñoo xam ne teel nañu ci biir lañu war a dugg idaa raatuhum min makaanin ba'iid bu leen séenee bu sore sori xam ne ñi gaa yi gaa yi ñoo war a dugg sami'u lahaa taghayyuzan wa zafira dañuy dégg muy bëmb sawara day bëmb ngir yàkkamti gaa yi wa ida ulqu fiha bu ñu leen ko sànnee fekk ba ñu leen koy sànnee mu makaanan dayiqa barab yu xat-xat dañ dugg ba noppi mu xarale leen nga jéng leen foofee nag daaw honaalika subura taskare lay daan taxaw ñu ne leen laa tad'u al-yawma suburan waahida wad'u suburan katira wallahi boo jàng alquran alkarim léeg-léeg day mel ne yaa ngi jàkkaarloo gis nañ ko yàlla xam na ko te suñ borom bisam boobu ni mu ko réyalee ni mu ko màggale dafa jéggi dayoo ma nga ne mboolem saari suuf yëpp yëpp yëpp daal la ci lay wax tàmbalee ko ci xiyaama booy dugg mu tàmbalee di ci wax da cee giñ sa moom boppam da cee giñ man loolu lay lay boo fay jàng dafa doy waar yàlla muy giñ ci bis bi laa aqsimu bi yawmil xiyaama la wax maa ngi wàcc bis bi loolu la yàlla wax foofu nga dugg di sóoratu naba yi ak wal mursalaati wal mursalaat giñ lu bëree bëree bëri wal mursalaat urfa wal aasifaat asa wal naasiraat nasra fal faariqaat farqa fal mulqiyaat zikra daane lan innama tuwaaduna ah la waaqi li ma leen di dig dama am nga dem tuur mu ne wa tuur maa ngi giñ ci daj wa nga xam ne fala Muusaa taxawal di wax ak man wa kitaabi mastuur di giñ ci téere yi nga xam ne ñu la bind fi rakki mansuur di giñ ci albaytul maamuur di giñ ci asamaan fi wa saqfil marfuu di gis ci géej gi bu ñu ko taalee wal baxril masjuur lu muy gi inna azaba rabbika la waaqi maanaam bëggalum yàlla faaw moom te kenn mënu koo fanq maa lahu min daafi moo tax bis penci laa ilaha illa allah li ci li ci li ci li ci doy waar mooy mooy xam yi ngeen xam man ak yéen ci ne faaw dañuy fekk loolu loolu moo ci doy waar maanaam moom daa amutu teg yi for force for force dalika yawmun majmuun lahu nnaas wa dalika yawmun mashhud nga ne lu tax ñëw mu ne wa maa nu axiruhu illa li ajali maadud yonente bi sallallahu alayhi wa sallam taxaw na ci benn barab di julli ba yàgg muy dox ngir julli gi ba yàgg mu taxaw bi mu noppee julli gi da ne man day tey jii maanaam sawar lañ teg sama kanam wan ma ko ma jàkkaarloo ak moom am na bis boo xam ne àjjana lañ teg ci kanamam neen bu mu ca yuutu woon danaa tiir danaa tiir te benn doom su ma ko jëloon ci garab yi ma doon seen waa Madina yëpp benn doom bi mën nañ cee lekk moo tax ñi nga xam dañ koo gëm dëgg dëgg dëgg dëgg wa bil axirati hum yuqinuun ñoom dañoo am yaqiin ci àllaaxira ñi gëm yàlla ñëpp dañoo ragal yoonu fi am borom bi ne ne yastaajilu biha alladina ñi ko gëmul doo nga koy yàkkamti waaye walladina amanu mushfiquuna minha ñi gëm yàlla ñëpp dañ koo ragal amul kenn ku gëm yàlla ku ragal yoonu fi am ñi ragal yoonu fi am yàlla daa ñaaw ñàkk ragal bi kallaa bal laa yaxaafuuna al axira borom bi ne ne yéen xamu lan moo tax ragalu leen àllaaxira bal tuhibbuna al ajila wa tadharuna al axira bal tu'thiruna al hayata dunya wal axiratu xayrun wa abqa addina bi yàlla da ko ñàkkal solo ñàkkal solo ñàkkal solo ñàkkal solo ba nga xam ne wallahi alladi la ilaha xayruhu ku jàng alquran maanaam addina mën ta fekk ci yow dara dara dara xool solo alquran koo xam ne sëñ bi maanaa tey yaa ngeeg saxaabi bu ñuy wax Aboubacar yor alal ju dul jeex Ousmane yor alal ju dul jeex Abdourahman ibn Awf yor alal ju dul jeex ba noppi ngay fanaan koo xam ne soo yeewoo sëpp yi day manqué di am ñaari weer ci sa kër kenn du fa tàgg Omar mas na ko waxal ba yàgg muy jooy ne ko mu ne ko looy jooy mbaa da nga si sàkk ci diini ji mu ne ko déedéet waaye damaa yaakaar ne Kisra ak Kaysar léegi am war nga koo mën a am mu daal di siggi daal ne ko maali wala dunya man moo jot ak àddina maali wali dunya ne ko man xanaa xamoo ne damaa mel ne kuy tukki koo xam ne damaa ñëw ba ci ak garab may noppalu diggante baa bay noppalu wala jugaat dem loolu dong laa am ci àddina moo tax sallallahu alayhi wasallam faatu na génn àddina bàyyil bor bor te kat li li bëgg ab jullit ab yahuud ko ko lebal ndax xam na ne bu ko lebootoon jullit jullit ba nag da koy bàyyi waaye ab yahuud la ko leb te njël la doon leb njël njël ci biir këram man de xaw ma ci kaw suuf si nitu yàlla ku bëggoon àddina xaw ma ko xaw ma ko ci àddina maanaam koo xam ne si maanaam daa bëgg àddina ci xolam nii xamul loolu moom lu muy jëriñ laa xamam gis penc bu taxawee ñi nga xam ne dañoo jaaroon fii ci àddina boo laa buñ leen laajee ñaata fan ngeen fi am dañ naan benn fan benn fan li te gën a ji bi wax mooy ñaan fukki fan id yaqulu amsaluhum tariqa illa bisu ñoo nga dem sax la ko illa bisum illa yowma xoolal bis bi bam xoola xoola xool addi bi mu tàmbalee lay kenn xamul ñaata ñoo fi jaar maam aadama jóge fi nooxe nekk aw nitam jóge fi hóod di nekk aw nitam jóge fi lóor di nekk aw nitam jóge fi way jàng afaa ñi fi jaar kenn kenn kenn kenn ku xamul tollam bàmmeel yaa ngi fees jell jell jell jell jell man de waxuma la bàmmeeli addina bi waaye bàmmeeli sa dëkk bi nga xam dong la fa nekk ci nit ñoo xam ne yow da nga leen xam yow da nga leen xam nga wóoral ñi fii te man damaa jaaxle ci sama bopp jaaxale sama bopp sax ndax jaxale ma ci ñeneen waaye man li ma xaw a jaaxal sama bopp mooy man xama suma xol bi dafa tee xamu nu mu demee noonu waaye da ngay dugg ci ay armeel sëñ bi daanaka du ko yëg ah loolu sëñ bi tawat la tawat bi wér la suñu dugg ci barab boo xam ne si ay junni nit ñoo fa tëdd amoon na fa ñoo xam ne ay millions ak i milliards bàyyi ci ay crédit bi nga dugg ba génn am na nga dugg yoonu génn waat yëgu ci dara billahi da ngaa tawal wallahi da ngaa tawal ne bu fekkoon ne feebaroo dara dara dara dara da nga soppi aw doxin de da nga soppi aw doxin de ndax mbir yi ci boppam faw nit ki mooy jubbanti boppam wax naa ko keroog sëñ Cheikh mi xam moom laa doon wax xamu kenn ku mu dawat ma ne ko gis nga àjjana ci boppam yàlla da koo def muy payu koo xam ne noppi na ci boppam li may gën a tiitloo nag lenn la mooy malaaka yi nga xam ne ñoom duñ fet te buñ lay waaj a faat fekk da ngaa doonoon koo xam ne fii maa ñaar dong la lay wax ñaari baat benn ñu ne la yaa ayyatuha nafsul mutmainna dégg nga ne malaaka dana ñëw tiim la naan yaa ayyatuha nafsul mutmainna te sa sa nafs bi nekkul mutmainna xalaat nañ ci loolu te bu heure bu nekk mën naa ñëw heure bu nekk mën naa ñëw malaaka yi dañ fenn dañu wax lu dul dëgg dañu fekk mukk nga nëbbuwu ci sa bakkan bi sa bakkan bi nga topp ko ba noppi ñu naan la yaa ayatu na sunu mukk may na du sotti moo tax kenn ku ci nekk rek na xool bu baax bu baax a baax a baax a baax man de yàlla xam na ne léeg-léeg sax dama naan wax ci boppam maanaam bu fekkoon nag ko mën a bàyyi complètement dama koy bàyyi ndax booy wax day mel ne ngaa jot yow day mel ne ngaa jot day mel ne da ngaa sotti maanaam mel ne daal ku nëpp ci sa bopp ba pare te defe yu bëree bëree bëri ay subu subu yoo xam ne kenn xamul nu mu toll ba mën naa day wax li ñu ne non ko di ci yow nga feebar àllum neen seen yow li mu jëndee woon bopp naa day fay ah atamuruna naasa bil birri wa tansawna anfusakum waaye léeg-léeg da nga naa ah xanaa daw sukkub si yàlla bi dong la de ah ah maa delloo si
mun astaqfirullahi xadisa waaw loolu dafay loolu la maanaam loolu ak ñaan la bu dee bu dee lu njëkk li yow yaa yow yaa wax sa borom ne fa rabbanaa yow mi nga xam ne yaay boole nit ñëpp innaka jaamiu naas maanaam da nga dajale nit ñëpp ci bis boo xam ne si sàkk nekk li yow mi laa reba fii ci dog ah déedéet ay jeexagul rabbanaa innaka jaamiu naas li yow mi laa reba fii inna allaha laa yuxliful miaad ah inna allaha laa yuxliful miaad mooy yàlla du faussé ab dël bu dee allahu moom ni mu ni mu tëddee man foofu yàgg naa ko xool ma ne waaw fii moom lu tax yàlla tàmbali saari bu isib sax la xam nga isib la xaw ma nu mu tëddee noonu man na daane allahu laa ilaha illa hu daane la yajma andakum man lan lan moo tax ñu jiital allahu laa ilaha illa hu rek daan daan ci noppi rek daa jiwali ko rek maanaam loolu moom dama jël yàgg xalaat donte xam naa li muy teg man a yàlla saxal bi mu saxal ak uluhiyaam wane ne amul kenn ku ñu war a jaamu ku dul moom ba noppi daf ci noppi rek daan ne danaa leen dajale yowmal qiyaama la yajma'annakum ilaa yawmil qiyaamati laa rayba fiihi daan ne kenn gëntu dëgg yàlla ci li muy wax wa man asdaqu min allahi ah xadisa ah man naa am man naa am xëy na daa bëgg a jàngale ne ku fa ku fa indaale tawxiid da nga mucc man naa am loolu bëgg a jàngale li tax mu jékki-jékki daan ne allahu laa ilaha illa hu daal di jógee foofu saafara saa ne la yajma annakum ilaa yawmil qiyaama mën naa am loolu la ndax yéen yàlla Muhammad moo ñu jàngal ne yawmal qiyaama ku ko ñëw indaale fa bàkkaar yu toll ne sept suuf bi bi yàlla xoolee xool gis ne bokkaale néewul ci dana la indi lu toll ne sept suuf si ñuy jël moom ñett nga ko jàngal sallallahu alayhi wa sallam mën naa am xëy na loola la ala kulli xaalin man àddina laa nekkoon fii dëgg ci yéem waxtaan far dugg fa laaxira waaye man bi may toog fii di di wax moom àddina dong laa doon jàngale laa bëggoon noonu ñu xam woyof gi mu woyof noonu ñu bañ koo jox jenn yitte ji daal dëgg la nag maanaam kenn du ko fàtte naam waaye yitte ju rëy ji moom jëru ko de yàlla xam ne du jëru ko maanaam ndax xalaatal xalaatal bis bi nga xam ne sëñ bi maanaam ci la ñuy dindi sa sa yére yii ah yére yii nga daan sol laaw dindi ko ba noppi dindi itam la dama damay bañ a jàll wa waaye daal da da doo sol dara daal ci gàttal. ñu teg la foo xam ne sëñ bi maanaam ay litre la tiim di sotti am ndox ah fanaan ak ci morgo moom moo gën a doyati waar moom man foo xam naa li ko woyof mooy waa ji moom daa dundutul moo tax xam naa fanaan ci morgo nga xam ne dañu fanaane glace nga mel ne sëñ bi maanaam mbuusu glace xëy ko njëkk a jublu ci lu koy bañ a yàq dong bañ a yàq dong la ci jublu nit ci boppam moo doyee rek waaw nit ci boppam rek moom la ay mbiram sëñ bi maanaam woyof woyof boo xam ne si moom nag moom loolu du ko nangu. boo ko kenn waxee itam waaw waaw na na ko xamal na ko xamal foofu bu nit na mu la mu la fay suñu pour pour yéega déedéet loolu nangu ko moom waaye noonu la tëdd moom yàlla xam na ne bala nga ko wan xam mooy nga tëdd di nelaw bala nga tëdd di nelaw da ngay summeeku pour ba dégg nag tàllalu nag parce que yéeneen di xaar nelaw nag loolu ni mu doy waar xaar xaar nelaw nga xam ne gëm lu ne nga koy jéem a def ngir nag ne ndax mu doon nelaw su boppam faaw nga xaar ba nelaw yi ñëw nelaw moom tam gën a doy waar nga jékki-jékki nag kan dëgg la ca gën a doy waar mooy ngay génn te li ngay génn mooy yow man koo nekk li te wóor na wóorul yàlla ne am na foo newoon fu bokkute fii nga tëdd ah te léeg-léeg nga gént gént goo xam ne fii ak ak gént moom tam lu doy waar la moom tam xam naa ne yàlla da ci jàngale ne bis péncu la am la rek léeg-léeg nga gént loo xam ne fii da lay wóor ne lii moom mi ngi ci sa kanam da nga ci àggul rek te bu àgsee itam na nga ko génte woon noonu lay defee dara du ci wute dara du ci wute maa ngi koy nekk li mel ni mbokk fekk daa am gént bu mu géntoon ba ñu nekk suñu faas ma ma ma ma ma ma dugg fee di jàpp ba yàgg rek sama xel lépp ci gént gi nam ma ko waxe woon nam ma ko waxe woon booba booba noona maanaam mënu ma ko woon a firi moom mënu ma ko woon a firi waaye daal bind gi daal fireeku fireeku fireeku ba ne nag la ñaaral ma ñëw toog ne ko ne ko ne ko mën ngaa fàttali ko loo ma sa gént mu ne moom moo ko nettali dem laa hawla wala quwwata illa billah maanaam gént moom tam ci mbir yu doy waaree ci la bokk te lépp kat yow mi yaa koy def yow jëmu ji yaay jekki-jekki rek nekk ci beneen aalam nekk ci beneen moom te lépp nag yaa koy def de yaay yeewwaat yaay gént yaay nekk ci keneen da yàgg nga ñëwaat léeg-léeg nga dema dema dem ba ko sant jóg koo xam tiim na maanaam lu war a lekk loo xam ne wóor na ko ne ci bu doo nga def mu far yeewu xanaa boo yeewoo sax daan bis bépp loolu mooy def ci sa bopp ah soos la xam naa ne ab soos la ah léeg-léeg gay la di la dàpp mbaa lu rag lu de boo tiit tiit bi day def da nga yeewu ba noppi bis yëpp bis day affaire bi day def moo lay xamal ne ah da ngaa yéeme de yow nit ka yow nit da xamul su bopp rek moo tax wallahi boo góorgóorloo soo góorgóorloo fexe ba mucc ci sa bakkan bii ay yim lay digal fexe ba seytaane nga daw ko ak li nga xam ne moom la lay sant góorgóorlu ci yàlla digal di kilifa nga de da nga ko xamul rek ma man nag defuma la kilifa yàlla la def kilifa yàlla mel ni def ngay xalifa ci kaw suuf da ngaa xam su bopp rek wallahi nit ñi dañoo xam seen bopp rek waaye nit ni ko ci ko yàlla teg bindal ko asamaan ak suuf bindal ko ay xara ci bay ki fasa ki mbaam ak sëñ bi réew bindal ko ko kooku sëñ bi yàlla la yël na ko de lool sax lool moom kay démb damaa dégg benn borom xam-xam bu wax lu doy waar mu ne xoolal si nga xam daa jël aw fas dugal ko ci wudd wudd xam ngeen wudd di ko jox pepp muy lekk lu gën ci fas pepp ak di fas pepp nga di ko jox pepp di ko jox pepp waaye nag daa am lu tax daa am lu tax daa am bis boo xam ne da ngaa bëgg a bokk ci kursu daa am ku bëgg bis boo xam ne daa da ngaa bëgg a bokk ci kursu soxna soxna daa bokk ca yooyu kursu moo tax nga nga wudd ko di ko jox muy lekk maanaam nga di ko sang buñ demee ba ca bis ba nag nga génne ko nag nit ñi xool ko mu taaru lool moom itam mu yëg ne tey jii moom daa am lu mu war a def. bi nga ko indee nga boole ko ñu boole ko yeneen moroom façon bi nga yëg ci kawam bi dàq sëñ bi fas yi dalay dawal maanaam di la dawal di wane ne maanaam maa ngi doon am sant bu baax ci li nga ma doon jox ah dugub ji maanaam yooyu yëpp maa ngi koy ba di def noo xam ne sëñ bi léeg-léeg nga nga jël dur xiin nga xam day dawa dawa daw ba nga sant yàlla mën naa am sax mu jël première suñ bi xoolal fa ko ne bindoo ko da nga ko doon jox di paas dong ay doon ko jox dugub dong te bañ demee ba la nga ko doon yaakaare ñëw la taxoon nga di ko defal loola ñëw mu wan la ca loo xam ne sant nga sa borom yàlla sa borom yàlla bind la yow jaam bi di la jox ngay lekk di la jox ngay naan te dara wadu ko lu bëgg nga jaamu ko rek bëgg nga jaamu ko rek moo tax inna insaana li rabbihi lakanuud borom bi daa indi ay fas wala aadiyaati maa ngi waat ci fas yi nga xam ne dañuy daw ba mu xaa bay xëxët ñu ni dàq ñuy daw bay xëxët fal muuriyaati maa ngi waat ci fas yi nga xam dañuy taal dañuy kocceel xadxan dañuy dal ci kaw ay xeex terñeen si génn fal muxiiraati subha maa ngi ci fas yi nga xam ne dañuy jékki-jékki rek songu ab dëkk ci ëpp suba teel fekk gaa yi nelaw njëkk ba pënd bu rëy fa afar na bii naqaa dal ca digg mbooloo ma boo foo fopp na bii xamul mi ngi inna al insana li rabbihi lakanut ñi ta ñàkk jom ñi ta mën a weddi xéewali yàlla yi kanut mooy jaaxidu ni'ma wa innahu li xubbil xayri la shadid ku bëgg alal la moom nit parce que lool nag wa innahu ala dalika la shahid moo jiit kanut boobu mu doon dafay wax nga di ko dégg daara doxut la lay wax ah dama gis daara doxut mi ngi nay bu baax a baax la bañut pëttut moom daal amul benn problème waaye boo ne ma ah jamono ji daara daara doxut daara doxut daara doxut maanaam moom daal moom kanut la léeg-léeg mu am xéewal yoo xam ne way ne sax du ko du ko gis sax du ko gis li nga xam ne moom la ko yàlla defal ci ay xéewal su ci toogoon di ci xalaat rek du ñàkk dara dara dara dara sallallahu alayhi wa sallam nee na koo xam ne da ngaa koy am dépasse ñu dajaleel la maanaam dépasse sa bis nee na day mel ne fakka annama xisat lahu dunia addina jëpp dajale nga ko koo xam ne xëy nga ab bis yàlla da sa yaram dara jotu ko sa njaboot gi dara jotu leen ba noppi nga am loo xam ne mën nga ko dund ci bis neen fa ka annama xizan lahu dunya daa mel ne at mi jëpp jox nañ la ko xanaa xam nga ne lu doy nit yomb na li fi nekk ci àddina mooy xir rek xir ak bëgg a dajale bëgg a dajale bëgg a dajale waaye lekk lekk lekk lekk ba tey gi tudd sëñ bi jaamu yàlla yomb na de yàlla yàlla defal tawfiq wa axiru daawaana an alhamdulillahi rabbil alamin